tamit c'est le moment muy muy def yéen yi parce que dañ ko soxla sénégalais dañ ko soxla waaw dëgg la mais information yu muy fóone lépp li nga xam ne mi ngi ko doon def ak njëriñ gi nga xam ne am na ko ci wàllum presse bi est ce que est ce que jar na parce que lii tamit bu ci deewee dafa xaru waaw mais xam mooy problème bi mhm. man benn côté la ay waxee quoi ñi ko fa teg ñoo ko war a génnee ji dem yóbbu ko tribunal. mais mais même boo amul amul tribunal amul dara comme comme dem nañ ba fii bi ba fii grève de la faim sonn ngay hôpital dem nañ bàyyil ñu faj la nga lekk sa lekk naan sa naan dem teewul li ngay xeex di nga ko xeex. mais d'une autre manière que grève de la faim. mais peut-être mën naa bañ a bëgg li ñu koy jox parce que xam nga nit ku ci nekk ak say façon. Mhm. waaw te te daam yoo xamante ni daa doy waar. nit ku ci nekk ak say façon mais mu mën naa bañ a mën na xam nga amul doole bu mu xeexee. Wolof Njaay naa na borom. amul liberté bi sax na voilà liberté bi amu ko ba pare amul doole bi léegi moom noonu la ko mën a xeexee. ñàkk lekk ba pare faj mi ñu mun leen bu leen ma faj mais li ci ëpp solo mooy tey président moom yëg na ni Pape Alé Niang jàpp na yow santé c'est primordial parce que lépp loo mën mënti def xeex boobu mënu koo xeex bu wérut. waaw dëgg la li muy bañ liberté boobu bu wérul même bu ko amee génn. mu dese ay sekkee leneen la leneen fekk ko ci du mën a wóyal xeex bi nga xam ne bëgg na ko kon est-ce que du jéemawul li nga xam ne moo di santé ba pare waaw yaakaar naa nit ko que ça soit muy médecin wala keneen li mu bëgg mooy grève de la faim ñu bàyyi ko ba leneen li ko bëgg li mu bëgg xëy na mu fekk ko ci fekk ko ci mais dafa ne man je me suis dit sa dund la yow la engagé dëgg la hmm. mais bu bëggee liberté ma wutee ko neneen bindal yaa parce que yàgg na nekk ci prison bi di bind day xëcc xalimaam bi gën a ñëw bind wax li muy wax bu paree bu génnee nit ñi dañ koy déglu parce ñi koy seeti aussi ñi nekk ak moom urgence xam nañ que ni santeem demeewul noonu waaw xam nga nit ku ci nekk daam nooy xeexee mais moom noonu la ko bëgg a xeexee mais problème bi nag yëpp yëpp ñi nga xamante ni ñoo ko fa teg mhm. denc ko noonu te denc bi ñu koy denc noonu yokkulu leen wàññiwu leen nan ko génnee buñ koy juger ñu juger ko après mu jeex su ko defee ñu xam moom mu xam li ñu koy toppee ak mu xam li mu waxoon ni waru koo wax ak li nga xamante nii tey moo nekk li nga xamante nii mooy yoon mu koy def mais tey jii ñu ngi ko bàyyi noonu te ñi nga xamante nii ñoo ko fa teg ñu ngi yëg nii moom mi ngi feebar yëg nan ko mais nan ko bàyyi parce que xam lan mooy lan mooy wax ji danoo war a bàyyi ñi ñu jàpp nii

teg loxo. waaw mais parce que xam nga lan moo tax xam nga tey nit boo ko jàppee teg ko ci benn bërëb waxoo yóbbuwoo ko ju àtte ko wala jugé jugé ko wax ko ni ko lii lan lay toppee. Mm-hmm. pare day metti quoi mais dañ ko war a bàyyi dañ leen a war bàyyi bu leen bàyyee ñu wax leen ni lii lan leen di toppee. lii bëggatuñ ko ci réew mi ak lii parce que xam nga tey boo nekkee ci nguur da nga am da ngay da nga da ngay bari doole. Mm-hmm. mais nguuru yàlla rek dama koy wax chaque jour nguuru yàlla moo dul jeex mais ñooñu ñëpp dañ leen a war a bàyyi xam lu tax parce que fi ñu leen te noonu. amuñu fa yokk yokkuwun fa wàññiwun fa xamalan la dañ leen a war a indi wax leen liñ leen di toppee buñ leen ko waxee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñoom ñu xam liñ leen di toppee ñu bàyyi waaw mais pas nga jël ay nit teg leen ci benn bërëb rek mhm. tey seeni famille di sonn ñoom it ñu nekk ci ay guuta maanaam nekk ci guddi gu bët setagul mhm. jàpp leen ci ci ci dara mais li ci ëpp solo mooy buñ leen jàppee ba leen di jugé nan nan leen wax ni lii lañ leen di toppee nan leen ko wax vraiment parce que léeg nga gis ñu jàpp nit ah génnee ko ñi ko toppeewun la dara après tardeel nan la quoi mais yaakaar naa tey bu nu bu bu nekkee nguur moom nii la ko bëgg a doxalee après day metti quoi parce que tamit am na ñoo xamante ni dañ leen a war a libérer Pape Alé première dañ ko war a libérer ñeneen ñi ci des ñëpp ñu bàyyi leen ay parce que tamit dëkk bi ñëpp mënuñoo ànd bëgg la quoi sax nag ñu xam fa la ñu mois lañ def ci li nga xam ne moo di prison bi mhm. leen wax joxuñu leen ne moo di verdict loolu aussi day day day day joué ci moo di seen seen seen seen famille seen avenir day joué activité yoo ne bëggoon nañ koo amal tey jii ku leen ne woon tey seen seen marché yi du leen fi fekk ñoom sax duñ ko daal duñ ko gëm mais mhm. li ci ëpp solo daal jor moo wax la ko pour mu leer àdduna munoo fee nekk ñëpp bëgg la. ñëpp bëgg la mënoo saf ñëpp. mënoo saf ñëpp jamais. Mhm. am na ñoo xamante ni yaa ngi leen di romb guddeeg bëccëg buñ la gisee dañuy du mooyu mais am na ñoo xamante ne nii tey yaa ngi leen romb guddeeg bëccëg bu buñ la gisee dañuy bëgg parce que dañ lay bëgg àdduna mu tëddee noonu. yàlla mi ngi minu sàkk sax am na ñoo xam ne sentiroon ni sax yàlla mi am na. am na ñoo yonent bi moo gën ñëpp mais jamono ay temps bi nga xamante ni nekk na fii di woote. lislaam ñii dañoo bëgg ñii bañ ñii bëgg danoo ñii bañ. Mhm. mais problème bi nag àdduna loolu la fii kenn mënta bëgg ñëpp. waaw parce que tamit ndar xëyul xëy nekk ndar. waaw parce que boo nekkee président yow yow déjà yaa jiitee àdduna bi yëpp. yaa jiite euh, euh, dëkk bi yëpp. Mhm. dëkk bi yëpp yaa ko jiite yow parce que yaay kilifay. dëkk bi réew mi léegi nag kilifay réew mi da ngay tëddee ndey ji seex parce que tey di nga am ay njaboot sax say doom duñu bokk jikko. Mhm. da ngay mën a toloore rek. jéem a voilà canaliser say doom tëjee tëddee ndey ji seex. Mhm. mais daa am yoo xamante ne nii xam nga li li lépp kenn mënu koo wax. mais daal loo ci mën a dégg Papa Alé Niang dañ ko war a bàyyi libéré ko mu dem ci famille mu faju wér. peut-être moom nii la mën a xeexee. Mhm. parce que ku ci nekk ak ni ngay geere moom nii la mën a geere ñii dañuy yor ay bomb ñi yori pistolet waaye ñi yor ay files. <laughs> waaye moom moom waa ñi yori xeer. mais moom Papa Alé Niang xiifal la mën a xeexe. Mhm. nan ko bàyyi. mooy ëpp solo balaa ñaaw. Mm-hmm. xam nga balaa ñaaw balaa ñaaw. bilaay Ousmane wax na ko fii keroog Ousmane Sane lépp lu ci mënti am danañ ko digaale ak ñoom. walaay da nan ko bàyyi la quoi ko jëndee nan ko bàyyi balaa ñaaw. Mm-hmm. walaay nan ko bàyyi parce que tamit suba. suba yàlla la kenn xamul luy xew. nan ko bàyyi. nii ci jamono ji ndax ko bàyyi ci jamono ah, gën de <laughs> moo gën comme saa su ne rek actualité day